leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne rek yéen a safoo Equivox TV mbokk téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek wopp ba coronavirus tey ci àllarba bi ci 1787 euh, tests yi nga xam ne rek réalisé nañ ko 285 rek ñoo ci jot positif ci 285 yooyu nag ñu ci am 96 cas contact 189 cas communautaire 7 décès 236 guéris ak 4 ak 417 yoo xam ne rek ñu ngi ci euh, bërëbu fajukaay ba tey rek ñuy des ak yéen ci wàllum wër-gi-yaram bu ñu sukkandikoo nag ci ab communiqué boo xam ne rek jot nañ ko nigéen ni démb jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum wër-gi-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr daal dina xam le ne feebar bi di fièvre jaune daal dina dugg si ci Sénégal ba sax nag juróom nit rek daal dinañ ci jot ñi nag ñi jot nag ci boobule feebar rek ñu nemmee ko ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba Kédougou Saraya Ciloñ ak Kidira ci ay fan yu néew nag dinañ dëdmal dëgmal rek li nga xam ne moo di campagne de sensibilisation bi ak vaccin bi rek ngir ñu mën a vacciner ñëpp ñoo xam ne rek laale nañ ci bile feebar. ñu daal di dem ak yéen rek fële ca turbinal kii di ex ministre bi nag di Aminata Lô Dieng nekkoon fii ci nguuru Abdoulaye Wade ginnaaw bañ ko jàppee nag ngir li nga xam ne moo di violation couvre-feu bi fi mu nekk nii dafa daal di décréter li nga xam ne moo di grève de la faim maanaam dafa bañ rek du lekk li waral bile mbir nag te dañoo bañ rek lekk yi di jóge ci biti di dugg si ci boobule prison waaye nag kii di Aminata Lô moom itam dafa xam leen rek du lekk-lekk boo xam ne xamul fan la jóge xamula nañ ko defaree lii rek moo tax mu daal di décréter li nga xam ne moo di grève de la faim ba tey rek ñuy wéyandi xibaar yi ci Equivox TV ñu daal di àddu rek ci ki nga xam ne moo di sa Seck nekk nag président du conseil économique social et environnemental moom nag ku ne xam na ne ci fan yi ñu weesu rek daal dina génn rek wane lépp loo xam ne rek am na ko ci alal maanaam patrimoine am waaye nag ñi nga xam ne ñoo di nag maanaam ñi gën leen xamee ci office national de lutte contre la corruption ak li nga xam ne moo di fraude daal dinañ xam ne rek papier yooyu nga xam ne génnee nañ ko raxas nañ ci seen loxo ba set wecc maanaam ñoom laale wuñ ci ndaxte lépp rekk loo xam ne dem na ci na nekk na loo xam ne c'est privé maanaam kenn waru koo xam donc nag euh, kayit yooyu nga xam ne rek ñu ngi circuler ci euh, presse bi ñoom euh, génneewuñ ko ñu daal di dem ak yéen fële ca Dakar dem dikk ku ne xam ne nag ci fan yi rek ab xëccoo am na fa mu nekk ci diggante ki nga xam ne moo di maître Moussa Diop ak Omar Boun Khattab Sylla di actuel directeur ba ci noonu nag kii di maître Moussa jóob rek lim leen di toppee moo di dañ ko war a jox rek li nga xam ne moo di juróom ñeent fukki million rek ci suñuy koppar maanaam ndàmpaay boo xam ne rek luñ ko war a jagleel la waaye kii di waaye kii di Omar Bun Xataab si la dafa daal di bañ rek ba lank ba taxoon nag maître Moussa Diop ba bloqué woon compte Dakar Dem dikki ci noonu nag war nañu wuy ju fële rek ca tribunal la ne arjuma ji rek ngir ñu àtte xeex bi nga xam ne nag ñu ngi koy xeex rek ngir jël xare yi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd mi maanaam les enfants de la rue daal dina jur ab coow ci diggante sëriñu daara ak ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi ki nga xam ne nag moo di sëriñ Babacar Sy Abdou daal dina ci àddu sax xamle ne rek ñi nekk seen mbëbët nekkul xeex li nga xam ne ñoo di sëriñu daara yi wala sax daara yi waaye rek dañoo bëgg a xeex li nga xam ne rek moo di alxuraan ci fan yi ñu weesu ki di Serigne Atou Diagne nekkoon njiital daayira bi di bu Tarqiyyah génnoon àdduna waaye nag bàyyi woon ab benn kër rek boo xam ne njabootam dañ caa dëkkoon waaye fi ñu toll nag daayira boobu nga xam ne rek moo di bu Tarqiyyah dañoo jóg rek ngir nangu kër googu leen ndax dañoo jàpp ne kër gi ci ñoom la bokk ñi nga xam ne nag ñoo di njabootu Atou Diagne boobu xam ne ne kër googu kii di seen bàyyi laata muy dëddu rek dafa xamle woon ne moom moo ko moom ci noonu nag ñuy daal di sàkku rek ci ki nga xam ne moo di Youssou Diop jiite fi mu nekk nii boobulee daayira ngir rek mu wallu leen jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi nga xam ne yéen safo Equivox TV fii la ñuy daal di yëm ak yéen rek ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah